mu loolu baax na. di ko leen ziar baax a baax baax waaye jibi wàdd fii ci biscuiterie yi. Ah. moom tamit moo dóor foofu dóor yu metti <laughs> fii laa dëkk ci biscuiterie moom dafa dóor macha jibi wàdd yaa ngi fi ak dafa dóor ba pare daal di manik daal di caravane xëy dem fële mu tudd Cameroun. Dóora Dóora <laughs> moom moom dafa ñoo jig moom dafa demaat Cameroun Dóora 2 euros. ayca kon jibi wàdd di ko ziar baax a baax baax looloo gën avant élection yi indiwoon naa fi course mbonaat ba. waaw non course mbott ma. waaw ma kon ma moo ñëw. waaw course mbott ma fi la la fekk. fi la la fekk fi la la fekk. ba mbott ma rawee lëg. ba ñu course daw poste kër ayib. Mm. kon coalition moo gagné élection yi. isaan ah. mm-hmm. gis nga de man nag duma magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko laa. Mm-hmm. loolu nag duma ca waxaat man. <laughs> dëgg la képp ku demaloon sa bopp. yow kese perte nga. ku xëccoo xëccoo ngir bëggam nguur perte na waaye ñi ànd ñoo gagné. ku ànd na da ngay dem. Mm. kon looloo gën euh, buur bi. ndeysaan day ànd ak benn waayam ñu naan ko dag dag bu mu bëgg lool sa ngoon ñu ànd di doxantu doxantu dem côté war jaxal saatawaali tuguj euh, njaago di doxantu ndeysaan bi ñu doxantu ci côté 5 heures ndeysaan ba ñibbisi bi ñu ñibbisi xam nga dag dafa fonk buur paasan <laughs> bi buur bi duggee ci néeg bi dagg bi di xëcc porte bi daal koy frappé rek mu kepp baaraamu buur eh, eh, eh, baaraam bu ne tipp daal di wadd hmm, buur bi mer mu ne ko buur looloo gën nu ko lan dagg ma baaraam naan looloo gën kii kum yàpp buur bu manqué cër téye ko pes ko dóor ko dóor yu métti ndeysaan daa ko tëj prison mu ne ko prison bi ma looloo gën ndeysaan mu ne xanaa kii dof la dof la yow lu ñu tëj ko prison mu sonn fa lool bu ñëwee di ko solal di ko dóor di ko jox tuuti ceeb mu ne li ngeen may def nii ci prison bi looloo gën ñu dem ci buur bi ne ko kee dafa dof ba ko fa kii bu ko génnee <laughs> buur bi xëy suba di doxantu moom kese ànd ak kenn yor dokkam di sa ak mantoom buurus di doxantu ba ci àll bi mm. te sant ak ay wëyu <laughs> wëy yëkkar buur bi daal koy tër ne nañ ko rendi ndax ñoom dafa am benn sëriñ bu leen wax nañ def benn sacrifice benn boxaaba mm-hmm. biñ tëree bi dem di koy rendi am ku ne déedéet daf leen ndànk de ñu wax ñu def sacrifice bi nee na ki ñu war a rendi ay cëram daa war a mat ku cëram matul buñ ko rendee liñ bëgg duñ ko am nañ xool cër nañ xool baaraam yi ñu xool baaraam yi rek gis benn baaraam bu dagg ñu ne kii bu ñu ko rendee amul sens. waaw ah. ko bàyyi mu ñibbi. Mm-hmm. mu daal di jóg daal di wuti prison ba. àgg nettali ko waa ji muy ko naa looloo gën. <laughs> ku bi daggutoon dañ lay rey. la mu ne ko ay maa ngi jéggalu de. Mm-hmm. bi ma la tëj mu ne ko prison bi loolu gën. Mm-hmm. boo ma tëjutoon chaque jour la rendiwul man la ñuy rey ji <laughs> loolu gën. la mu dama lay génnee fii nga nekk. def la ministre. jox la xaalis bu bëri jox la ko oto bu baax mu ne ko looloo gën nag <laughs> mu génne ko jox ko teraanga ju bëri ñu ànd macha allah. kon élection yi lépp lu ci am Baye Assane. looloo gën gën <laughs> looloo gën. looloo gën. meru port kii deuxième port perte na looloo gën gën na Mourour looloo gën. waaw waaw waaw gën na looloo gën. ci yàlla amal na ànd lu yàlla def looloo looloo gën. Abdoulaye na Dakar looloo gën. Soham El sama yaay ji nag maam mais mais su xam sax dafa def lu rafet gis nga bi Barthélemy maanaam bi ñu yëf yi amee tendance génne dafa dafa dafa woo Barthélemy. félicité ko ne ko mhm. sama doom kontaan naa. waaw allah. macha allah il maa ngi laa nuyu bu baax. xaaral ñu mu ngi laa nuyu baax félicité la yow tam. Mhm. Euh, parce que. quand c'était compliqué avec Khalifa Abakar Sall. Mhm. elle est restée. elle est restée brave. Mhm. Mhm. malgré que AFP la bokk et tout. ko nag mooy nii. elle a essayé Sénégalais yi décidé nañu autrement elle reste ce qu'elle est. y a rien qui li mu def foofu ci mairie ba def na ko. yal na yàlla yàggal ko. yokk ko sàmm ko ak njaboot gi. amiin amiin amiin bu baax ba sa barke alxuraan. te yàlla. ko leneen. ndax looloo gën nag looloo loolu loolu ñoo ngi si jàngat ni lu yàlla defal jaam. da ko war a gërëm nangu jaamam bi te xam na ni mm. moom rek a xam li ñoo ëllëg. ba tax mm-hmm. ne lépp lu mu def a gën. Mm-hmm. li ma la ci seede mu wax day tungoom seede. waaw li gis nga nit day am day day xam suñu borom. Uh-huh. day xam suñu borom damaa damaa ngénte sama taaw tuddee ko yonanti bi. sallallahu alayhi wa sallam mu toog ay jours quatre jours cinq jours ñu woo ma téléphone ma faatu naa lundi mm-hmm. ci guddi lañu ko wax ma xëy maa da ñëw liggéey si mm-hmm. maintenant ma war a woon liggéey ku ne naa ma war a woon liggéey ma ne loolu moo gën moo gën wala laaxira du xeyrun laka minal ula li war a ñëw moo gën lii lii yàlla li mu war a indi ci kanam mm-hmm. moo dàq lii nii macha allah keroog émission bi ma def moo dàq émission yi mardi soxna si dafa neef bi ñu toogee ay mois ca la wan naa lor xam nga ku ma am Cheikh Ahmed Tidiane Chérif barzaqul axla tajul arifina looloo gën te Cheikh Ahmed Tidiane Chérif moom noonu nga am noonu ak a xam maamam di yónni. kenn du ma sallallahu alayhi wa sallam mooy ifadatika minka ilayka. voilà <laughs> Aïcha en tout cas merci beaucoup mi ngi doon lii neex na waaye jàmm gën lépp yal na yàlla ko ci Sénégal Ndiaye mu ne si jàmm ñun ñëpp bañ a ci suñu biir yàlla mën ah, na ko di présenté waaw loolu <laughs> gën ca bopp maa la wax lii dina gën a di looloo gën <laughs> Aïcha maa ngi nuyu sama borom kër aw ah, passage mi seetaan lii yàlla dogal a nekk sama borom kër loola gën Aïcha mi ngi noonu ah monsieur Cissé li mu la jëlee loola gën waaw ah, boole gi ñu boole loola gën man daal jëm naa moo